kon noo ngi wax ne muqaddamatun lii luñ jiital la maanaam lii mooy buntu téere bi des na jàng muqaddamatun def na jàng muqaddimatun lu ci woon doon baax na al ilmu xam-xam yan qasimu dana séddalikoo wala dana xaajalikoo hindul xulamaa yi fooy xam ña li zahirin jëm ci aji feeñ wa batinin ak aji nëbbu kutima jot nëbbeef na ko sirran mbir mu muy mbóot nee na xam ñaari xaaj la xam-xam bu fés ak xam-xam bu làqu xam-xam bu fés bi mooy fiq bi nga xamee ne luñ la ci laajte nga xam ko doo ko sañ a nëbbu xam-xam bu baatil nag mooy bi nga xam ne moo lay jàngal ni ngay sellale sa biir ànd ak ànd ak teggin ba yàlla nangul la booy la ci jaam yi mu gërëm kooku nag mooy xam xam bu baatil bi mooy xam xam bu tasawuf moom lay bëgg a wax tax mu ne zahiruhu aji feeñam al muslihu moo di aji yeenal lil amali ñeel jëf wal baatilu aji nëbbu bu nag al muslihu mooy aj aji yéwénal lil axwaali ñeel mbir ya dana xam-xamu zahir bi mooy bi nga xam ne boo ko xamee ci ngay mën a defari say jëf ba mu dëppoonteeg ni nga xam ne moom la ko yàlla yonante bi bëggee ci zahir loolu la xam-xamu fiq bi jàngale xam mu baatin bi nag moom mooy yéwénal say mbir maanaam mooy tax sa xol sell ak say jëf ba nga xamee ne la yàlla bëgg jëf mel na ci baatin ci sellal ak teggin waaw loolu lay tax nga mën ko xam-xam boobu loolu lay jàngale fa awwalun aji jëkk duhiya woyef na ko bismi tafaquhin ci turu fiq wa taani ñaareel bi wax yi wattoof na anhum jële ci ñoom bi tasawufin ci turu tasawuf xam-xam bu njëkk bi nga xam ne zahir mu fiq lañ koy tuddee xam-xamu ñaareel bi jàngale baatin tasawuf lañ koy tuddee tumata taqdimul fataa topp jiitalu cam si alfiqha fiq ala tasawufin ca tasawuf wujoobu waram nga xadin jala feeñ na nee na fiq nag mooy cosaan moom li war a jiital ci jàng yi ak jëfe gi ndax ci cosaan sax fiq rek moo amoon waaye nag booba ñooñu dañoo boole woon ci baatintam tasawuf nekk ci biir gannaaw bi ñu demee nag bu adduna soppiku ñenn ñi fara féete ci fiq di ko gëstoo ko jàngale ñenn ñi jéem a melowoo tasawuf nag di ko gëstoo ko wutal aw yoon ak ay bunt ba mujj nag mu sopp ko aw yoon moom itam waaye ji cosaan moom fiq rek moo amoon kon nag buñ ma saa wax yooyu jamono buñ ma saa wax ku dégg diine ku am fiq bu ñu diw faq yi la yooyu jamono day boole sàmm saaxir si muy àtte yi yàlla tëral ci kaw suuf sàmm itam baatinam nag ba mel ne yàlla bëgg su boobaa kon mel nañ doonte yëgu ko itam nitu tasawuf la doon doonte yëgu ko ndax boobu yaar yëpp la boole fa ma nin tamaa ko askanu ilaa ixlaalil awwali jëm ci xët ku jëkk ga xalaak kon mu alku fi duniyaa ci àdduna bi hukmil xulamaa yi ci àtte way xam ñi ku jëkk ci mooy fiq nee na koo xam ne nguwoo sàmmonteeg moom bu fekkee lislaam a ngi doxal jees yi dina wax ne kon léegi danay àtte àtte ca war ne ki xam ne léegi dafa nangu wut a julli te xam nga loolu fiq la saahir la wala daa at wala daa weddi waru koor wala mu weddi waru julli bàyyi mel noonu dañ ko daa àtte ci yoon daal koy àtte àtte bu rey xam ne loolu àtte bu fës bañ ci moom mooy daal di rey loolu mooy àtte ba kon ñàkk a sàmmonte fiq moom koo xam ne sàmmonte wala fiq dañu daal jàpp ne kooku alkuna maanaam ñu xam zahir dong dañuy jàpp ne du mucc bu ndax topp liñ digle bu doon ci yoon mooy dox itam ni ma waxee léegi daal koy àtte àtte yoon boobule wa man yakun ku nekk nag dal islaali di borom xët bi saani ci aj ñaareel ji yaxlik kon mu alku xadan ci ëllëg bi xukmi dil jalaali ci àtte borom màgg ga maanaam koo xam ne sàmm nga fiq mooy jëfe ndigal ci zahir waaye nag sàmmoo baatin maanaam sellaloo ngir yàlla sàmmoo ci teggin kon waa adduna li ñu xam ci yow mooy ne da nga mucc ndax ñoom zahir rek la ñu xam borom xam-xam yi adduna itam loolu lañ mën a jàpp waaye nag buñ taxawee ëllëg fa kanam suñu borom ba suñu borom ni man lu sell dong laay nangu te yow sa jëf ji sellutoon sama jëmm ji taxutoon mbaa sàmmoo ci woon tegg ne ba taxana kon duma nangu sa jëf wa ah, kon koka mom fofu lay dora alko waye nak daga mi ngi doon sam fiqhu fi ci aduna du man lumay japp ni kuy mucc la ba ëlëm na loolu mo yalla ñoo xam kon fa wajibul aji la halal hibadi ci jam ñi to doon boole seen jamhu ma seen boole ñoom ñaar di ka yenaaloo ngir ñu am al ajra yool ba tax kon neena la bax moy nga boole fiq tasawuf manam fiq moy nga sam rubbu shariha lepp diglé nga def ko lépp lu ñu aaye nga bàyyi ko sori ko loolu mooy wàllu fiq ga boo ko defee ngir yàlla kese nag te sàmm ca teggin yi ci yell nag waaw loolu mooy wàllu tasawuf gi ku su boobaa boole nga yaar yépp boobaa nag ku boole yooyu yaar mooy nit ku mat ka mooy royteefoo wa man tafaqaha koo xam ne fiqu na bilaa tasawufin ci dul tasawuf fazu tasa fazu tafassuqin kon boroomu caay-caay la sarihin guy aji wér faarif na nga xam maanaam koo xam ne sàmmante naag rëdd di topp ndigal di bàyyi tere waaye defu ko ngir yàlla tam mu ca teggiin kooku duñ ko wax dara ndax loolu yàllaa koy mën a xam waaye nag faasiq la ci biir waaw faasiq la te bu ëllëgee ni koy ko waxee woon su borom day wax ne man yu sell képp laay nangu te yow sa jëf ji defoo ko ngir man nga xam ne kon ku topp fiq bàyyi tasawuf buñ ne faasiq la itam ci digganteem ak boromam rek la waaye ci saahir moom waa àdduna xamuñu lu may jëfe ndigal bàyyi tere te moom mi ngi koy def ñak ga selal nak loola digënté ak borom la wa may yakun ku nek bi haksi da ci safanub ki fa innahu naka mom amalo jangal nañu sha'nahu biram ila tasanduqin jëm ci sindiq manam ko xamni dafa top tasawuf wax ni man dal li soxla moy xol bu sel rek sa xol mom sel na kon man na ma xati digal ak tere yi lool nak mom mo gëna doy war man na am sax ci batin du ko wañi dara way nak ci walu sahir mom bu fekkone l'islam nga doxal jësi sa yu xëtt digaleeg tere yi rek ñu awale ko ci te ñu ko ci awal duñ ci am ben tor fa yàlla ndax ñoom sahir lañu atté àtte te loolu lañ gis am na ñu ñu ray ci nit tasawuf yi atté lu atté bi doxal ci loola te ñoo ko def itam ndegam yalla yàlla topp zay ha képp tax ñu def ko duñ ci am yenn daani yàlla ñoom seen jëm bopp nag lañ seq yàlla ba tax ñu wax ne sañ nañ loola nag ñu wax nañu waxee te waa aduna xamuñu ko nag loolu moom seen diggante seen borom la mhm. ko defé nak nag man jamaha ku bolé li fiqi li fiqhin ñeel fiqh wa tasawuf ak tasawuf fa huwa mom allëf moy ko nga xamné ne xuq lefna la ho ñeel ko ay yut tabax bu defi top ko a neena ki nga xamné nak moy yeyo ñu roy ko nak moy ki bolé yar yef nga xam top na rabbu shariha lu ñu digle mu def ko lu ñu tere mu bayiko mu nak bolé ci sam biiram la yàlla bëgg ci jàmm ci sellal ak sam teggin batay mu bolé ko ca kooku nag moy nit ku mat ki nga xamee moy awroy def أخرج جننا ذا الحكم بلي أتي الإمام الإيمان به مالك تموي مالك رحمه يلنا كيرم رضي يلنا قرم أنه وليسكو المالك أجي موم جا نينا أتي بني نيكو ترلي جي كتاب فيق كيب باي تصوف أك كتاب تصوف كيب باي فيق تجي وخني شنديق لا ليرو لما كوان صح واي دي نوان كو خم دفا طب تصوف باي باي فيق ما نم دا وخني من دال قلب سيال لني صخلا تأمناكو kon nak sayna ma maa xat ndigal tere ko dañu japp ne zindiq la zindiq moy nga xamne day feeñal ak l'islam te fekk na kéfer mo nek ci biram wax dañu japp ne bu fekkoon ni gëm nekkoon na ci mom kon li kon li sañ xaradu dana koy jëfe waaye ndegam ne du ko jëfe nag kooku dañu japp ne kon zindiq la bu ne ni ñu ko tërali nak wax ne ku def lee bàyyi ku jàppalee bàyyi lee nangam ak nangam ku boole yar yëpp yaay ku mat ka al imam malik moko ko waxoon dañ daa waxoon ne من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق ان لا خيوان ولتعلم ان خم بان علم تنك خم وحمل اك هما نيوم نيار وسيله السعاده نيوي نياري جوتلي كو كاي تخه مانام نيوي نياري مويني تخه اجل واو دلو ورني نك yaar mooy yi nga xam ne ci la ñuy amee texeeg tey ëllëg mooy xam lu baax te di ko def ak xam safaan ba te di ko moytu te yàlla tax boo boolee xam ak jëfe xam lu baax di ko def xam safaan di ko moytu boo ca boolee yàlla dong tax nag ànd ak teggin nag xamal ne kon yaa ngi ci yoonu taxe bu fekkee bàyyiwoo ko rek da nga àgg fa ci taxit kon na nga farlu fiihimaa ci ñoom ñaar wa fi tasfiyati ak ci sellal ga min kulli ci bépp gàkk wa fi tamqiyati ak ci setal ga ndegam nee nañ la xam-xam ak jëf ji yiw mooy lépp ci la ñuy amee taxe tey ëllëg kon na nga ci farlu bu baax te fexe ba sa xam-xam ak sa jëf sell set wecc wecc dara lu koy yàq bañ caa wa saxihan te nga wérale kilayhima képp ci ñoom ñaar bi sidqi ci ak dëggal wal ixlaas ak ak sellal tablu far kon nga tuufu bil ixtisaas yi ci ngëneel fexeel ba xam-xam ak jëfe lu ci mën doon nga ànd caakuk dëggu ak sellal nga ànd caaku way akuk sell te yàlla doo dong tax su boobaa da nga am gëneelul tey ëllëg wa bittibaahi sunnatil muxtaari ak ci topp sunna ka ñu tànn salla yàlla na doli tedd nga wa sallamati doli wóolu xale yi ci moom albaari yi aji bind ji wa ali yi ak ñooñu wa saxbi ak ay saxaabaam wa man ak képp koo xam ne tabixa topp na asaarahum seeni saawo mooy fañ awoon min muqtadan ci ku ñu roy wa mut tabixin ak aji topp nee na fexeel ba sa xam-xam ak sa jëf nga dëppale ndax lépp lu dëppoo wut ak sunna rek ndax day jëf yaar koy tax a baax dëppoonteeg sunna mooy benn ba mooy fekk lu yàlla muy lu yoon lu yàlla yonent bi digle loolu ay benn ba ñaar bi mooy ñu def ko ngir yàlla kese waaw saa yoo xam ne yow yaar tase na ci jëf rek incha allahu jëf ji dana àgg ci fa mu jëm dafa tudd yonente bi nag mu ñaan yàlla doole ko salaatu wa salaam mook ay gaayam ak ay saxaabaam ak képp kuy jéem a topp fañ awoon moo xam kilifa la gu ñuy topp ci moom moo xam ab dongo la buy toppee wakkun nekk wakkun na nga nekk it mulaasiman di aji taqoo li maa ñeel la nga xam ne xad saqu la diis na xaleyka ci yow min xumaa ci ñoom ñaar wa naa yi ita nga sorenteeg alkasala tàyyeel gannaaw ba nga xamee ne xam ak jëfee ci la ñuy lépp nag nee na kon lu ca dara diis ci yow maanaam xam bu diis ci yow mbaa jëf ju diis ci yow bu mu tax nga bàyyi ko na nga ko jéem a yenu rek te góorgóorlu te te ñaan yàlla téeñal la waaye bul ne jëf sàngam damaa jafe ba xam-xam sàngam na maa jafe ndegam xam gu am jariñ la jëf ju am jariñ la rek lu mu diis diis ci sa bakkan xamal yow moo baax ci yow jéem ko yenu te dëggaloo yàlla wadum te nga sax xalal la fii ca la nga xam ne tas butu doo sax xale ci moom law jaa ko doonte dikkaloon na la almawtu dee kama xadd sabatoo naka ñu saxe nee ne boo bëggee xam jëf ji ju baax la am ju aay la dangay seet ba xam bëgg nga dee fekk la ca am déet li ci ëpp moom bakkan dafa ragal dee lépp loo gis bañoo dee fekk la ci rek xamal ne jëf ju baax la waaye loo xam ne bëggoo dee fekk la ci lu ci ëpp rek xamal ne say boo bàyyi ko donte da yaari jëf yiw sax jëf janga nga xam ne ci ca nga gën a bëgg hmm, dee fekk la ci sax xamal ne joo jàggan ci yow in tax tamit ndeem nga muñ mba am mbaa de mbaa da nga yenu fi zamanin ci jamono xalilin ji aji néew mashaqatan coona li zay ni ñeel yi la yaar yaa xalili yoo sama xarit taslam kon nga mucc wa taxwite kon nga laq ba'dahu ci gannaawam tanaxuman ak xewu xewu mooy xewlu dehran ci jamono tawilan ji aji yag fi jinaani di sama ci àjjanay borom asaman neena xam-xam ak jëfe moom mënta ñak ak coono ndax dara lu baax lu amatu ko amut waye da ngay jéewu muñ coono bi ndax muñ ye coono xam-xam ak jëfe ci ci dund gu gatt gi dal dem ci dund ba du jeex nek ci xewal ak jamm ta du jeex mukk mukk mukk neena lolu ku xalaat ku ne nangu nga ko dañuy jàpp ne ëllëg yàggaay ba bu ñu ko doon misaal adduna xam nga fekk suuf yi ni mu baree bu yàlla sàkkoon benn picc muy def bis bu ne mu jël ci wenn fepp dong koy fekk yi dana mujj jeex te ëllëg moom du jeex waaw loolu misaal la rek ci yàggaayu ëllëg ëllëg amu fu mu yem ne loolu nag boo ci yenoo xam ak jëfee ndiir su gàtt muñ ko rek ah sa dund daal di jeex nga tàbbi ci xéewal goo xam ne amul fu mu yem wal taala mën na nga xam nag bi ànd iksaarahuma ci naka seenu baril ñoom ñaar ma kasratil afaati ànd ak bari ay gàkk aw tarkahuma wala seenu bàyyi ñoom ñaar ñëpp li xaw fiha ngir ragal ay gàkk aw xadamin xoboor yi wala ngir ñàkk teew ga fil xal bi ca xol ba loolu lépp xamal ne jaa dikk na min azamil waroori di bokk ci gën jaa rëy ak waru gën jaa màggi ak waru mu ne na xamal ne bari xam-xam ak jëf di taxul mu sell taxu ko am solo jekki naa itam man kat xam naa ne su ma dee jéem a xam baa may jéem a jëfit du sell kon naa far fas ci saay loxo benn yoon toog loolu ba tey xamal ne pexem seytaane la wala boog nga ne du ma jéem a xam du ma jéem a jëf ndax man sama xol bii moo ci dul teew maanaam mënumaa teewlu xam ngir jëfe ci sama xol loolu lépp xamal ne pexem seytaane la da ngay jéem foo toll di xam ak a jëfe te di ko sellal te di ci ànd ak teewlu sa xol rek lu ci yàlla xew li nga xam loolu la ci yàlla joxe ndax xëy na lim la xéw lim la joxul tey bu ëllëgee mu jox la ko ca waaye nag bari xam ngi jëfe gi te sellut a waru la jekki-jekki bàyyi yaar yëf bàyyi yaar yëpp ngir ragal ne booy xam mbaa booy jëf faaw du sell ba sab xol du ca teew loolu lépp xamal ne a waru dangu la waaw daal del jéem moom baril xam-xamul jëf gi te muy sell te nga ca teewlu ak sa xol rek watal kooka sag bàyyi it at taw ba ta tuub xaw fa an taxoo da ngir ragal nga dellu ilal maas yi jëm ca moy ya kaydu iblisa taxem iblis la al marid kay aji fetterlu patay neene man duma ci tubante ndax xamna ni li mom gañe na ma ba nopi suba ko tubé itam leba delu wacc wala ka setan la bakar ba lum la gañe gañe gañe sa yo ko defé recc ko tub ko tub gu sel delu ci yalla te japp ni jegal nañ la ko te lola am itam bu wer sax te tama yalla man nam rek nga mujj jub xoc dal di fatte mbolem li xetu bakar ba waye na ni tay ma ndax li lii ma duma xas gañe su ma ko tuubee lee ma delluwaat ci loolu mom pexem seytaane mu reuy reuy la wal hilmu xam-xam aftalu mo gën axiyo sama bin al hamali ci jëf wa ussuhoo te modi di ab fondement itam mooy ab fondement jëf fa faasa kon taxena man ka nga xamni ne xasala am na la hooñeel ko xam nga da nga tagoon yaar yëpp ni xam-xam ak jëfé ci lañuy amé lépp lu baax té ak ëlëk bu del nak xam-xam moo gën jëf moo ko ëpp daraja ndax bu xam amut jëf du am ñi nga xamé ne tabax mënta am te amoo fondation xam nga xam-xam mooy fondement bi jëf tegu ci kaw nga xam ne léegi bu fekkee ne fondement amul rek tabax du am loolu moo tax kon xam-xam moo ëpp ja waaye it boo taxee fondement kese yam ci doom ni boo dugg day aajowoo nga def fondement ba noppi tabax teg ci kaw nag mu wéy ba nga raase am foo dugg nag mën a fegut ngelaw ak tàngaay fiit noonu la mel da nga xam ba noppi nag jëfe boole ci ma tax mu ne lakin na tamaruhu waaye nag meññatam kan naf yi ni ki njariñ la fi xamal yi nekk na ci jëfe bi ci xam-xam ba fakku nekkal dal jam si di boroomu boole yooyu yaar mu ne balaa xam-xam day am njariñ nga jëfe ko lay meññatum xam-xam di njariñam mi ngi aju ci jëfe ga rek kon fexeel ba boole xam ngeeg jëfe gi yaar yëpp xal yi lu fa aji moom jëf bil xilmi ànd ak xam ak sëru bu ëpp sawaban ci ab tuyaaba sawaban ci ab yool minal kasiri ci aj bari ja ma jëxlin ànd ko réer lartiyaa nee na jëf ju néew te ànd ak xam moo ëpp solo lool jëf ju bari te ànd ak xam ndax jëf ju bari ju ànd ak réer moom du ci ëpp kooka la mu yàq mooy ëpp la muy defar waaye bu fekkee balay def xam la muy def bu wér a xam la koy tax a baax xam la koy tax a yàqu kooku jëfam ju néew rek day daal di gën jëf ju baree bari koo xam ne xamut naa fi woo aji jariñam moom xam-xam nag ëllëg fii mooy ba nga xam ne alfata cam si taxan la ma xamlu na ko lillaahi ngir yàlla jàll màgg wax dafa moom rek waxal la ma te mu xamle waat ko dina xam-xam bi ëpp njëriñ mooy bi nga xam ne bi nga koy jàng yàlla dong nga tax bi nga ko xamee itam nga di ko jëfee ba noppi di ko jàngale waat boole ci boobu xam-xam gën ci mboolem xam-xam yi laamaa waxuñu xam-xam boo xam ne tool li ma xam loof na ko mira ak ngir werante wariyaa ak ngir ngistal awil mubaaxaate wala puukare woo bii ci moom fal tadr yen na nga xam waaye nee na xam-xam boo xam ne ba ko koo koy jàng yéenim seetlu ca bëgg a weranteeg borom xam-xam yi ak bëgg ñu tagg ko ci xam xam bu bari ba bëgg koo puuk réew borom xam-xam yi ci des rek tax kooku nee na yéen ci ñàkk jee sell moo koy yàq wala la siitu caageenu xam-xam ba nga xam ne su yi dat rabboof na adduniyaa adduna bi ci ci moom li fub bi jaahin ngir sopp daraja wa maqaamin ak maqama naabihin bi aji yëkkati ko ba tey nee na xam-xam bu kooku wut ngir rëbboo ko adduna maanaam ngir amee ko alali adduna ji rek bëgg daraja bëgg maqaama bu kawe rek am ci alali adduna rek patay neena bobu joji yene moy yak xam xam ba ni jëmmi xam xam baax na way yene jojo ko yak wala lu ci du ci agenu xam xam ba nga xamne yuttu la bu def nako sakku li tahayyul ngir fexé bi ci mom li sarfi kulli khalbin ñeel wal beuti bepp xol faqil na nga xel tay neena xam xam bu ko koy sakku ngir bëgg rek xol yi dëgmal ci ko manam nit ñi wal dëgmal ci ko ak seeni xol sopp ko top ko lol dong amu solo joji yene baxut te kullu man képp koo xam ne taxal la ma xam lu na alxoloo ma xam-xam ya beexti naayin ànd ak sonne li haadihi l asiyaay ngir yi la yëf walam yatub te tuubut xablal mamaati njëkk faatu ga wal kibari akuk mage mu daarikan mbir mu muy aji dabaatal maa la nga xam ne faataho rawoon na ko waxta sëxari ci waxtu bu ndawe wa falaa lahoo déddi ko ñeel yow ma suaali ci bisub laaj ba wal xisaabi ak xisaab ja siwaa wa baalin dara musiba wa malaamin ak yaraange wa xasaabin akum mbugal nee koo xam dafa jàng xam-xam ngir yëf yu ña yëf ñàkk solo yi rek xam ne yàlla taxut kooku nee na la tane mooy la baax ci moom mooy mu teel koo dabaatal balaa dee fa ak akum mage bu ko teelee dabaatal la ko rawoon lépp mu dabu ko loola baax na waaye bu ko deful rek boo tut bu taxawee bis penc ba laaj ay jëf ak ay jëf dafa am lu may musiba ak yaraange ak mbugal mu metti li an ilmahu ngir naka xam-xamam ba yasiiru dana mujj xujjatan di aw lay xadan ci ëllëg xale yi daanu ci kawam xale yi war ko mooy xale yi ci kawam maanaam ki nga xam ne xamoon na waaye jëfewutoon xam-xam ba ba sàkkuwu ko ngir yàlla bu ëllëgee rek bu tax bis penc bu taxawee ñu yey ko ndax dañ koy wax ne ko ah, kii xamul moom mën na ni daa xamutoon waaye yow mi nga xam ne xamoon nga su kumpa deñ ba noppi nag taxul nga aw ci yoon wa ba defu woon ngir yàlla waaw loolaay tax nag kon xam-xam bu dee soppiku aw lay yey ko waaye moom bu layee du ko taxa yey fanaafiul xuluumi aji jariñi xam-xam ya ay dan ba tey maa mooy ba nga xam ne afaada jariñ na saaxibahoo boroomam xasiyata xaaliqil xibaadi ragal aji bind jaam ñi nee na ba tey xam-xam bu am njariñ ca dëgg-dëgg mooy ba nga xam ne may na boroom ak ragal yàlla maanaam xam-xam bu tax nit ki ragal yàlla daal maanaam xolam leer ba fu mu toll bàyyi xel boroomam ak ëllëg taxawal gi ñu koy taxawal di ko fay jëf fu mu toll di bàyyi xel loolu di jëfe ndigal di bàyyi tere te yàlla tax nee na xam-xam mel noonu mooy bi am njariñ wa dulla akuk torox torox mooy torox moy bañ baña yëkëti boppam xana jàppi boppam ab jaam la rek bu woyef woyef wa zuhud akuk dëddu wa kasratal adabi ak bari teggin yana xam xam bu am njariñ dalay jox ak mokk akuk torox xam ni jaamu kese nga yàlla rek mooy sang bi ko defee nga amuk dëddu aduna ak lépp lu bokkut ak yàlla ba tey xam-xam bu am njariñ dalay tax bari ay teggin wa jasabate mu ñodde liftiqarin jëm ci aajo yàlla wa tawaaduhin akuk toroxlu xam xam-xam bu am njëriñ day yóbbe kooka fu mu toll di aajowoo boroomam fu mu toll di woyaflu ak toroxlu ak woyaflu ngir boroomam wa taharate mu laabal alxalba xol ba wa xamaxate mu not nafsahoo bakkanam wa manaxate mu fekk wala te mu aaye ko min maxaasi xaaliqil wara ci moyi aji bind mbindeef yi waaw nee na xam-xam bu am njëriñ day laabal xol boroom tax koo not bakkanam ba kanam du ko mën a jëmee fenn fu aay xam ba kanam da koy not ba nga xam ne ci lu baax rek lay jëmati ba tey xam-xam bu am njëriñ day dox diggante borom xam-xam bi ak xeeti mooy yàlla yi da koy tax a bàyyi ak mooy waaye li fay xam-xam bi taxu koo bàyyi ak mooy rek kon turu xam-xam waa fa nekk waaye ca dëgg-dëgg ak wér la amal ladi naal xam-xam ba nga xam ne li mu nekk nekkut hakaza niki nii falam ya naq doo mën a fekk xadan ëllëg min naari rabbina ci sawara suñu borom na xam waaw ñu ne bépp xam-xam boo xam demewul nii kon xamal ne amul njariñ te bu ëllëgee itam du mën a fegal borom dugg këru safaan ba maanaam dugg safara wa afdalul xoloomi gën ji xam-xam ya bi itlaaxi ci doyal xanaa bi itlaaxi mooy mutalaxan amul naa bëleeg bële amul xëy ak seen xam xam-xam bi gën ci xam-xam it amul xëy ak seen daal ci gàttal tawxiidu rabbina mooy wéetal suñu borom xala tifaaxin ci tëppoo am xam-xam bi gën ci mbooleem xeeti xam-xam yi mooy xam-xam bi lay jàngal ni ngay wéetale sa borom xam ni moom rek mooy yàlla ku bokk te moom di ab jaamam ndax manes naa wéetal yàlla kese mooy ci ku faatu dal di mucc manes naa wéetal yàlla itam gannaaw bu sax xëy na def nay bàkkaar dooru mucc waaye tawhid ba tax yàlla jéggal ko bàkkaar yooyee te nag leneen lu bokk toog moom ko doon def te fekk wéetalul yàlla itam ni ki muy julli mbaa muy woor mbaa muy leneen te fekkul tawhid boobu am su boobaa du am njariñ du ko tax a mucc وبعده نكن ci gannaaw at tafsir firi lil qur'an ya al qur'an sumal hadith ثم الحديث توب حديث قاله wax nako ad daymani daymani yana bo wesso xam xamu tawhid xam xam bi gën ci xéti xam xam yi moy xam xamu tafsir xam xamu firi alquran bo wesso bobu xam xamu hadith mo cey top wa khayruha bi gën ci ñom nak manam xam xam bi gën ci ñom min bahdiza ci gannaaw ki muy tawhid wa zayni ak gannaaw yi le yar muy tafsir ak hadith xilmut muttafaq yi moy xam-xamu fiq bi xeyr may nañ ci fen ya bo weso nak ñet xam xam-xam yi nga tuddu muy tawhid ak tafsir ak hadith kon xam-xamu fiq moy gëna ci mbolim xeeti xam-xam yi yooyu nu ñoy xam xam diine yi nga xam ne boo gisee ñu jàng yeneen tam ba ba géeju ci ñoom yi ma tax ñu jàng yeneen waye ñoom ci dëgg-dëgg ñoy xam xam diine moo tax mu ne wa baxda dhil mazkurati nek na ci gannaaw yi li ñu tuddu al alatu jumtukaay ya te aani dana jublu xalal xasabi ci kem jariñal ku ne yaa xudd xasabi ci kem jariñal ku ne yaa xuddaatu mën naa nekk yéen way jubal ñi ndax jam ku haadin la xëy na itam mu nekk yaa xuddaatu yéen way jub yi daa wax ne boo weesoo xam-xam yooyu nga xam ne ñooy xam-xami diine am na yeneen xeeti xam yoo xam ne am na yeneen xeeti xam-xam yoo xam ne ay jumtukaay lañ leen di tuddee maanaam boo leen jàngee ba xam leen dañ lay dimbale bu baax a baax ci nga mën a géeju bu baax ci xam-xami diine yële su ko defee nag kenn ku ci nekk rek njëriñam ma nga toll ci noom lay dimbalee ca loola moo tax mu ne xalal xarfe bi joojule moom la misaale kan nax wi ni ki naxu wal xaroodi ak xaroodi wal bayaani ak bayaan wal luxatil xarabi ak luxatil arab wal mahaani ak mahaani xam nga naxu ak luxa am nañu solo lool lool ndax boo xasee xam loxo loxo bi loxo mooy ni nga xam ne moom la baaji firi ca dëgg-dëgg ci langu arab boo ca boole xam naxu maanaam xam grammaire ni nga xam ne moom la ñuy boolee baat yi ak bu leen boolee lu war a joxe loolu lu am solo lool lool la bu ko defee xam-xam xaroobu ak xam-xamu bayaan xaroobu mooy xam-xam bi lay jàngal mbirum way xam nga lu bari nak ci langue arabe dañ ko doxal ci seeni way seeni diw seeni dawawin seen dawawin shari ah lu bari ci secret yi loxa arab dafa nekk ci seeni way moo tax wa tax des na ko fonk lool ndax man cee jariñu ci booy gëstu ci alquran ak hadis ak tawhid ko defee nag bayaan ak mahani ak albadi ñoom ñetti boo leen boolee ñooy tudd xulumul balaaxa ulumul balaaxa dañ koy xaaj ñetti xaaj al maani al bayaan al badi ulumul balaaxa mooy xam-xam yi nga xam ne ñoo lay xamal secret yi nekk ci langu arab ba nga xam ne alquran féetee kaw mboolem xeeti wax yi ci des ak gannaaw alquran ni wax yonante bi féetee kaw mboolem wax yi ci des ak xeeti wax yi ci des nañ sutantee loolu xam-xam boobu muy xilmul balaaxa moo koy jàngale nañ sutantee loolu xam-xam boobu bu xilmul balaaxa moo koy jàngale kon gis nga xeeti xam-xam yooyu kenn ku ci nekk na njariñam demee ci yow mën laa dimbali ci la nga bëgg ci xam-xamu diine rek noonu lay ëppee morom ma njariñ su boobaa nag xam naa ne kon dafa mel ne loxo moom ak naxu am nañ ca solo lool lool lool moom wa afdalul xamalin gën ji jëf maa mooy ja nga xam ne taaxal dëdd limu na la xoo ñeel ko fawaa idu ay njariñ kaa ilmin niki xam-xam xad bu sabata bu soxna ya dafa mu di jiñ an di jahlin walis reeru borom bu reer wa qubhin akuk bon wa kulli ma ak lepp lo xamne yan famu dana jariñ li di rashad ñal borom mu jup gannaaw bu la tagale xam xam ak jëf nak nga xamne xam xam mom moy fondation bi jëf moy tabax bi nga xamne yoyu yaag mënu ci ñak mu nak xam xam yi yemoowuñu jëf yi itam yemoowuñu xam-xam yi gënaanti nañu jëf yitam itam gënaanti nañu kon xam-xam boo xam ne moo gën a mën a dindi ak réer gën mën a tàggale jëmm ji ak lépp li xeetu mbon boobu xam-xam day daal di gën bépp xam-xam bu lay tegtal ak jub tax laa jub rek day daal di gën pour moom su ko defee jëf itam yëpp jëf joo xam ne moo ci gën a bari ay njariñ rek ndax dafa am jëf joo xam ne day am benn njariñ baa boog jëf ju am ñaari njariñ baa jëf ju ñett ba jëf joom fukk ba jëf joom loo xam ne yàlla rek xam na mu bare ci ay njariñ kon nag jëf itam noonu gënante foo toll kon ngay jéem a xam xam-xam yi gën te di ko topp te xam itam jëf yi gën di ca farlu bu baax a baax wama ak la nga xam ne yu saf yi dana sellal alqalba xol ba wax wate moom maa mooy la nga xam ne uddiima saxaleef na ko wa in xulli la ab doonte néewaleef na min fu ci moom xaalahu wax na ko alxakimu aj xam ji xikam maanaam bokk na ci jëf yi nga xam ne ñoo gën a baax jëpp jëf joo xam ne day tax sa xol sell jëf ju sellal xol nag mooy jëf joo xam dafa dëppoonteeg sunna maanaam lu yonante bi santaane la ba noppi nag nga di ko def saxoo ko bañ koo bàyyi benn yoon doonte sax néew yoon waaye danga nga koo saxoo rek loolu moo gën jëf joo xam na nga koy def tey bu ëllëgee nga bàyyi ko loolu baax na sax waaye li gën a taamu daal mooy loo xas tàmbali ci jëf ju baax rek nga di ko saxal saa yu nekk wa kulli ma ak lépp loo xam ne saqu la diis na xalal nufuus ca bakkan ya kamis li infaqin niki kem ak dundale li sax si ñeel jëmm baxila joj nay na ne bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi jëpp jëf yoo xam day diis ca bakkanu kooka xanaa jëf ju diis ci bakkanu doomi aadama ji rek na xam ne jooju jëf moom baax na ci moom ndax lu bakkanam sawar mu woyof ca moom rek li ci ëpp ñàkkut sikk su ca nekk ba tax bakkan ba sawar ca xir ca waaye lu bakkan bi diis loo ko bañ nag nga xam ne loola moom say moom góorgóorlu ca moom jëmm ji te xam ne baax na ca moom niki koo xam ne yàllaa ko bindee nay ba xam na ci bopp ak nay daal kooku bu dee forcé boppam di def alalam ci yoonu yàlla infaq mooy dundale mooy def sa alal ci yoonu yàlla loolu day daal di rëy ndax xam nga ne koo xam ne nay dafa sori ci xolam alal sori ci xolam bu dee forcé boppam di ko joxe rek te yàlla tax day daal di soppi ko jëf ju rëy wa sawmi ab koor li sharif yi ñeel aju fuqale aju fuqale mooy ku xër ci ñam lool maa ko xër ci lekk lool koo xam daa xër ci lekk lool bu dee forcé boppam di woor di daan ba kanam day daal di nekk jëf ju réerée wal xumooli aku géem li mubtaxi shuhrati ñeel aju sàkku ciwte wa tafdili aku gënal maanaam koo xam ne daa yëg ci boppam bëgg ab ciwte ñu koy tudd lu bari ak di wax dara jaam ak ngëneelam kooku bu doon nëbb boppam di jëf jëf yu koy tax a suulu kenn du ko tudd kenn du ko xam waaw su boobaa loolu daal di nekk jëf ju rëy rëy daal nekk jëf ju baax ci moom lool mën na ko andil tuyaaba ju rëy rëy wa aqbahul xisyaani gën jàppani ak mooy nag maa mooy da nga xam ne xassaahu wawal na xol ba taqsiyatan ak wawal wa ansaahu te mu fàtteloo ko taaxatan ak trop nee na mooy yàlla itam nag rawante nañu lool ci mbon waye gépp mooy yalla go xamni ne day tax xolum nit wow buñ ko waré du ko dégg bu gisee lu bax xolam du ci jeexitalu hmm. lu mel non moy xolu xox mo xol bu wow loolu moom nee lepp lépp lu koy waral rek ci xeeti moy yalla yi mat moy to bu baxa bax baax bokk ci likoy waral nak baril ay wax noonu ci lo xamni ne jëmul ci tudd yàlla mbaa dara wala sax rek regg yu nek xeyna du moy sax hmm anam xeyna wax ji mën naa bari nii te ak mooy nekku ca waaye ndegam amul tuyaaba rek lekk ci tam buñ ne araamut tam waaye dafa saxoo rek saa yu nekk rek loolu lépp mën naa andi xol boobu waaye loolu nag moom taxul mu di ak mooy taxul nag loolu nekk ak mooy ah ndegam wax ji ayul rek la muy lekk itam dagan na ci moom loola kon duñu wax ne lu aram la duñu wax ne ak mooy la waaye nag mën naa andi xol bu wow daal moom kon xeeti moy yàlla yi ga ci gën bon ci gàttal moy gépp moy yàlla guy yowal xol bi di fatelo borom ak top yàlla wa afdalu zikri ngeen ji tuddi yàlla kitabullah mooy téere bi yàlla bi maxat tadabburi ànd ak setantal wal intibah ak yeewu yew neena xeeti tuddi yàlla yi dafa bari waye li ci gën mom moy ngay jàng alquran te diko setantal diko tewlu ko teewlu bu baax a baax ndegam yow setantal ya da nga ci mën a yokk xam dal kon yow nga diko tewlu diko setantal lolu mo gën ci mboolem xéti tuddi yalla yi ko defé tuddi yalla da yett tuddi yalla ci sa làmmiñ kefe ak tuddi yalla ci sa xol kese ak tuddi yalla ci yar yépp boole xol beeg làmmiñ wi boole xol beeg làmmiñ wi nak moy ba ci fété kaw ko defé tuddi yalla ci xol bi kefe manam diko téw teewloo ko setantal ci xol bi te baña tuddi ci làmmiñ mo ci top tuddi ci làmmiñ kefe nak mo ci mo ci gëna fété suuf waye moom itam mëta a xeeb ndax soo ko day mujj yóbbu ko ci xol bi ko dem bu dem bu ci nga ag ci yaar yépp boole tudd ki ci xol bi ak ci lamay wi wa ayatun laaya wahidatun juddi jenn du dub bi rek joo xam ne setan talef na fiihaa ci moom tafooxu dana kawe xatmatan ak wàcce xalat goo xam ne wéet na minhu ci setantal neena jenn laaya joo jàng te setantal ko teylu ko ngir nga yokku ca ak xam moo gën nga wàcc kaamil bi yépp te amul setantal waaw wàcc kaamil bi yépp te setantaloo ko da ngaa rabat rek jàll jenn laay joo seetantal moo ko gën ay li mu ci namm bi ci julli aw bi mushafin wala ci kaamil sama mu yëkkatiku na nee na moo xam la nga jàng ci alquran muy laaye mbaalu ko ba wane a fekk ngay julli mbaa da doon xool ci kaamil mbaa da nga doon tari lu mu ci mën doon daal seetantal ga moom mooy lañ ci gën a taamu te mooy ëpp tuyaaba wal jëhëru ak biral ga xay su salima foofu xam ni mucc na min riyaayin ci ngistal ba tey ne na taamu nañu boy tuddi yalla nga di wax ci kaw niki boy jang alquran bu la ni mom yow sa borom dong nga ngay bayyi xel do bayyi xel ñu lay déglu ba tax nga ci yok ba nga ci wañi ba nga ci waxe ba nga ci defee lu bokkut ak ngir yalla xam ne nit ñi tax nga yok ci ba nga wañ ci yalla rek tax ngay def te do ci yok dara lu may jëm rek moy tax nga yok waaw su kon neena nga wax ko ci kaw mo gën waye nag bu fekke aggo ci deugur ba aggo fofu nak kon yow nga wax ci suuf ndax nga bañ ca ngistal moy gën ci yow wan naflu nafila fil bayti ci neeba muy ci kër ga la ho ñal nako fadlu nganeel shahir li aji siiw aydan batay neena nafila bokk na ci nga xamne bari na tuyaaba lool waaye nag bu dee julit nafila gu mën doon nga defe ko ci sa kër moo gën nga defe ko ci jàkka jee ca mbooloo ma wa bil layli ak ci guddi ga wa jaw fi ak biiram ba al axiri kay aji mujj Nafile dañ koo sopp ci waxtu yëpp woo xam ne araamaluñ ko ca sibbuñu ko ca mu ni waaye nag waxtu guddi lañ ko gën a taamoo guddi gi itam la ci mujj muy suus ba nga xam ne moo ci mujj mooy boo defoon guddi gi ñetti xaaj xaaj ba ci mujj jëm ci njël ga jëm ci feng ci jëm jëm ci fengtal fajar boo waxtu la nelaw di gën a neex la jàggante gën a bari kon naafila ci yooyu jamono ci lay gëne ci nga naafila ci njëlbeenu guddi gi